décoration au drapeau. Envoyez Thank you. ñu ngi leen di nuyu di ko tàmbalee ci monsieur le préfet di nuyu euh, maire yi fi nekk di nuyu conseillers yi fi nekk yépp di nuyu chef de service yi nekk ci biir Thiès di nuyu force de défense et de sécurité yi di nuyu nag suñu délégué de quartier yi nga xamante ni dañoo mobiliser wu bu baax tey te suñu wayjur euh, Papa Souleymane Kanté jiite leen di nuyu euh, secrétaire général de la ville di nuyu directeurs yi ak chef de service yi nekk ci biir mairie bi di nuyu personnelu mairie bi di nuyu suñu mbokk Cees yi fi ñëw di beral nuyoo waa fanfar bi tey nuyu suñu xarit yi di taalibe nekk ci dëkk bi ñi ngi duñu daal képp koo xam ne teew nga fi ah di gërëm préfet mi nga xam ne levée des couleurs bi nga xam day am à l'échelle départementale ñun dañ ko ko ñaanoon pour ñu defee ko ci ville de Thiès ndax xam ngeen ni altine bu njëkk bu ne lu mel ni day am ci biir département bi dajale ñii waaye day wër day dem ci gox yi ci biir département bi ah bu tey bii préfecture la waroon a amee waaye ñun ñoo ko sàkk woon ci moom ne nañ ko defee fii ci ville de Thiès ah mu nangul nu ko kon baax na ñu gërëm ko ci moom ci boppam nag xam naa ni am na lu ko téye waaye mi ngi fi puisque adjoint mi ngi fi moom mooy préfet euh, li am solo mooy loolu ñu sàkk woon dafa am ci luñ ko wéeroon loo xam ne rek day jagal dëkk bi ndax xam ngeen ni jamono yi yépp xëy na am na lu ñu baaxoo woon di di ko defandoo entre ñun mooy ñun maire yi nga xam ne ñoo séq dëkk bi ah mu amoon ba ci biir lu ci xawoon a sooxee te ñu war a jubbanti suñu bopp war a jekkas xoolaat suñu taxawaay ba gën a seet xëy na du ñàkk ci façon bi ñu ko doon defee mu am ci ay yenn rëq-rëq ñu waraat tàmbaliwaat di daje di waxtaan di déggoo ndax barki Demba Ndiaye gis ngeen ñu organiser fii deuxième édition wu JMT muy journée médical de Thiès di sant yàlla bu baax nag ndax Thiès waaye woon nañu mais aussi euh, corps médical bi aussi mobilisé wu na volontaires yi mobilisé wu nañu ñëpp ñi nga xam ne ñoo ci doon dugal seen loxo partenaires yeeg ñëpp mobilisé wu nañu ba jàpp ci waaye ci seen taxawaay ñoom ci seen teewaay ak teewaayu notable yi. ci lañu waxoon ne bu fekkee dañu jóg di def consultation gratuite ngir mën a saytu ñi am ak jagadi ak di def soins gratuits ngir di leen faj ci luñ dul génne xaalis ak di def distribution gratuite de médicament mooy war leen a jox ay garab ci luñ dul fay dañu war a bàyyi xel tamit ne am na ci sunu biir loo xam ne man feebar laa ko mën a tuddee mooy ñoo xam ne dañ daan daje di waxtaan di déggoo suñu toogee ba mu yàgg réeroo am ŋaayoo am dafay jaadu nag ñu wax mag ñeek ñépp kenn ku ci nekk loo ci man nga def ko ndax mbirum cees la ndax cees moo daje tànn ay conseillers conseils yi daje tànn ay maire ngir ñu toppatoo problème mu dëkk bi léegi nag su fekkee ne mbir xew na ba loolu xëy na demeetul na ko nit ñi bëggee woon maanaam li ñuy régler problème bi du ne diw wala diw lii régler problème bi mooy jéem a seet naka lañ koy tàmbaliwaate maanaam fexewaat rek ba jéemaat ko tegaat ko ci yoon di fexewaat di dajewaat di waxtaanaat ngir di déggoowaat ndax problème mu dëkk bi laaj na loolu ngir cees tamit mérité na loolu maanaam cees jar na ko waaw ndegam Thiès jar na ko nag mënuma lu dul remercier vraiment le maire Aliou Sow kii est là euh, le maire Cheikh Tidiane Ahmed Tidiane Lo mi nga xam ne moom moo fi teewal Euh, Pape Bassirou Diop mii meeru Est te nekkul euh, ci Sénégal jamono bi ñu toll di remercier adjoint au maire yi nga xam ne yëpp jóge nañu ci communes yi te ñëw teew fii ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ville bu ko defee euh, ñu am yaakaar ci dajewaat tàmbali waxtaan en attendant que ñëpp di teew ñu tàmbaliwaat ko tey bu ko defee altine bii di ñëw xëy na du concerner département bi préfet mais comme ñun altine bu jot lañ daan def euh, lu mel nii même bu fekkee ne léegi daje yi dañ koy gën a espacé waaye bu njëkk bi ñu tàmbalee ko est bu ko defee au moins semaine prochaine ñu daje foofu ci levée de couleur bu ko defee waxtaan yi dooraat ñu mën a xool problème yi ci dëkk bi parce que yenn yi ci nawet bi la yenn yi ci mbalit mi la yenn yi ci lumière yi la yenn yi ci encombrement bi la yenn yi ci peut-être problème mu jakarta parce que ba léegi am na ci ñoom ñoo xam dañuy continuer di jël ñaari nit ak yeneen ak yeneen yu ñuy tere alors yooyu yëpp laaj na e jar na ñu daje waxtaan ensuite ñi ngi dugg ci nawetaan yi am na tey tëralin bu bees boo xam ne moom moo am ci ren te kenn ku ci nekk dafa am wàllam te jaadu na ñu waxtaane ko am na yu bëri yoo xam ne ci conseil bii passé waxtaane woon nañ ko pour bëgg yaatal ko ci biir dëkk bi am na xéewal yoo xamante ni xëy na jóge na ci gouvernement ñëw su forme de fonds de dotation de la décentralisation ak su forme de fonds de concours mu tas ci ville bi ak tas ci commune yi mu am nu mu war a demee ci doomu aadama yi xëy na bu ñu ci concerté woo dinañu xool la meilleure manière bu ñu ko war a mën a yóbboo ci ñooñu bien sûr après avoir sollicité et reçu les conseils vraiment des services déconcentrés de l'État yi nekk ci dëkk bi yi nga xam ne ñooñu war a xelal ci wàll woowu. maire bi la. xëy na concerné wul woon a priori département bi mais maa ngi leen ciy invité aussi euh, mooy tey la ñu waa ODCAV xamal ni ci la ñuy démarrer euh, lépp lu jëm ci coupe du maire bu ren su ngeen fàttalikoo daaw dama ko tuddee woon euh, ma Diouf ñuy ñaan yàlla yokk yërmande ci moom ren ji nag dama ni leen dama ko tuddee Mamadou Dieng mi nga xam ne dafa nekkoon ci ñun euh, te yaakaar naa ni bokk na ci ñi gën a ràññiku ci Thiès ndax néewoon na lu fiy xew ci cees nga dem fekkoo foofa walla fekkoo fa jëfam euh, kon dafa jaadu au moins en attendant mu am yeneen cër ci biir dëkk bi

messieurs les maires des communes, mesdames, messieurs les membres des forces de sécurité et de défense, nos doyens de la fanfare, mesdames, messieurs les chefs de service, nos doyens délégués de quartier, comme l'a souligné le maire, qui sont venus en, en nombre, chers invités, mesdames, messieurs. Nous sommes de nouveau réunis, comme chaque, lundi de, chaque premier lundi de mois, pour satisfaire à cette cérémonie républicaine et citoyenne qu'est la levée des couleurs. Vous vous interrogez peut-être quant à son absence. Je voudrais, avant de poursuivre, vous transmettre les amitiés de monsieur le préfet Alioune Badara Samb, qui, souffrant, n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. Nous nous réjouissons de la volonté concrétisée du maire Talla Sylla d'accueillir cette cérémonie au sein de l'hôtel de ville de Thiès, qui est une place forte sur l'échiquier administratif du département. Ce matin, nous nous inscrivons dans la continuité. Comme il vient La ville a inscrit la levée des couleurs dans son emploi du temps depuis belle lurette. Mieux, elle l'organise chaque semaine. Cela traduit l'attachement de la ville aux valeurs cardinales de citoyenneté, de civisme, de don de soi, mais également au respect de ces symboles de la nation, en l'occurrence notre hymne et notre drapeau. Concernant maintenant la vie du département, nous constatons, on touche du bois, une certaine accalmie sur la situation sécuritaire. Nous le devons à nos forces de sécurité ici présentes, que je tiens à encourager, car chaque nuit, à travers notamment les opérations Karangue et les opérations de sécurisation, c'est eux qui patrouillent dans le département, qui mettent en place des checkpoints en vue d'assurer notre quiétude. C'est également grâce aux efforts de chacun d'entre nous. En effet, nous avons compris que la sécurité est l'affaire de tous. J'en profite pour remercier nos parents délégués de quartier qui nous appuient considérablement à travers leur enseignement, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Toutefois, nous ne devons pas nous considérer à l'abri. Nous devons poursuivre les efforts menés jusque-là pour contenir l'insécurité et remporter le combat contre cet, envi, cet ennemi invisible qui a fini de s'installer dans tous les pays du monde. À ce titre, Je tiens à rappeler que le numéro vert 800 800 880 est toujours actif pour permettre à tout un chacun de signaler les faits suspects ou inhabituels qu'il pourrait constater dans son environnement. Concernant l'hivernage, le maire l'a également évoqué. Le département enregistre depuis quelques semaines ses premières pluies. Les efforts engagés en amont par les collectivités locales portent leurs fruits car, jusqu'à présent, Et là encore, on touche du bois. Les difficultés enregistrées l'année dernière ne sont pas encore présentées. Quoi qu'il en soit, l'administration ne ménagera aucun effort en vue de faire face à toute situation. Pour ce qui est de l'autoroute Ilatoba, je voudrais vous informer que la phase de conciliation concernant les impactés sur les cinq premiers kilomètres, qui ont, je le rappelle, fait l'objet de modification à démarré. Il s'agit de l'ultime étape avant la phase de paiement que l'AGEROUTE devrait aborder dans les meilleurs délais. Les travaux préparatoires concernant l'autoroute Thiès-Tivaouane et l'élargissement de la RN2 en deux fois deux voies se poursuivent correctement. Je terminerai par demander à tout un chacun de formuler des prières en vue d'un hivernage de paix. Que Dieu puisse nous offrir une campagne agricole au-delà une campagne agricole de tous les records et nous garde du spectre des inondations que nous connaissons chaque année. Excellente semaine à toutes et à tous. Je vous remercie de votre attention. Merci.